ñu ngi sàkku nga wàcceel ñu sa tedd nga ji ak sa ngëneel lu yaatu li ci toroxluk sàkku mooy sàkku gi nag ñu ngi koy boole booleeg woyeflu ak marchandisum yaakaar nee yaakaar rek lañu def njëkk waaye yoruñu dara mooy xam nañ ne li ñuy sàkku suñu jëf mënuñu koo may sa yërmande rek lañ ci yaakaar su ma ginnaaw bi it bi tawasulin ñu ngi koy def tawasul bi muhammadin ci muhammad sayidil bashar mi sangum mbindéef yi والشفيع تموي أجر موجا المشفع كدي كون نمو كدي كون نانغو أم رمم موي كنغا خمني ألك دان رمو تنيا مرمو بلين تينو نغا تنلين في المحضر كداجة وكاي بموي بانغا بألي يوم القيام الذي موي سيانت بيغا خمني ختم تتجيغ بيه كيموم النبيين مبوالم يانت ييغا يونيون وأعليت تتنغا كويل درجته درجام في العليين تعليين